di nuyu mbokk yi bu a baax a baax ci turu sëriñ Hamsatu Mbakke mu yebal sëriñ Cheikh Mbakke doomam di loxool ndey joram yàlla dogal itam kuréel yi nga xam ne ñooy ñëw ci sëriñ bi mu doxali sëriñ Cheikh seen digganteeg sëriñ bi te sëñ Seex mat ndaw loolu lool mboolem luy bàyyi ci kuréel yi di jaar ci moom di ñëw ci sëriñ bi mboolem luy jóge ci sëriñ bi itam di jaar ci moom muy ñëw ci kuréel yi te loolu yële ci Tuubaa yi rek ñiy fare fële ci sawu ba xam nañ ne mel nii wala ci daje yu mel nii moom ñi dafay yónni ak bokki boppam yi nga xam ne ñoom la baaxoo àndal ñu ànd ak ay mbokki taalibe yoo xam ne. léegi rek bi ñuy jógee sëriñ bi ci boppam moo wax ne mboolem nit yi ma leen doon dox loolu yëpp na ngeen ko bàyyi te daal di daw sëriñ bi de su ko yokkal kàddu mu yëg loolu nii ngeen di def fekk ci njëkk ñëw ngeen fa ba leeral ko ko ñor gum leen ñor tax sëriñ bi leeralaat liggéey bi di tëddee loolay saa bus sëriñ bi ñu yeggee ci waxtu bi moo wax ne na ngeen daaw fekkee ji ko balaa jotaay boobu am na ci la ngeen ko ginnaaw xam ne naa léegi ne sama njàng moom mu yóbbaale ma ndax bu jàngee rek mel na ni jàng naa ñaan suñu way di sëriñ Dramé di way juróom suñu borom te bu ko kattan ak wér koñ naan si xas yi lépp moom maa ngi wax ci làmmiñu sëriñ Cheikh mu jóge ci sëriñ Hamzatou Mbacké mu wax ni mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te di leen ndokkee itam ci bis bii nga xam ne moo waroon a ànd ak yéen njàngeen ji ba ci mucc ànd ko yéen ci jataay bi ngeen di gis waaye ànd na ko yéen ci yëgu xol ndax bàyyi bi mu bàyyi xel bis bi tax na bu ñu yeggee ci waxtu bi liggéey bi di mat fa saasa rek moo woote te mbooloo maa ngi bari lool ba sëriñ Cheikh ko mu ne ko bis boobee laa ko ci dem ma ca léegi balaa ñu koy bennal sëriñ Cheikh wax ne sëriñ Mbacke bu baax a baax di ànd te ñàkk bañ a def noonu sëriñ Hamsatu day wax ne koo xamut noo koy def nam la dafa tax te wax na ne mboolem kuréel yi nga xam ne dañoo nekk Touba rawatina kuréel bii yëg na ne waxtu woo xamee ne mi ngi ci pas-pasu liggéey Sëriñ Tuubaa waxtu wu ne mosu koo génn sax waaye saabu soxnaa mbooloo saabu ngay soo gis leen te loolu waxtu bu jot sëriñ Seex ñu koy leeral guddi ajuma yii itam wax na ne kenn mënu leen ci léegi bi ñëw ci oto bi la sëriñ Seex bi wax bu ma maanaam wax maay waxal sama bopp ndax maa mën a sëriñ seen pas-pas ndax ku ëpp pas-pas ci sëriñ amut ku jiitu ci liggéey la bi itam liggéey sëriñ bi itam amut sëriñ Seex leeral sëñ bi mboolem liggéey yi ngeen mas a ànd moom yi mujj yi ak yi jëkk yëpp guddi ak ma yeeg taxawaay yi ci tool yeeg yëpp loola dugg ci nopp sëriñ bi yéeg bis bi di ko dundandoo ngeen di ko àndandoo kon sëriñ bi nee na liggéey yooyu mi ngi ñaan ci dara ji sëriñ Tuubaa sëriñ bi tegal na ko ci loxo sëriñ Moustapha maamoon ay kàddu yoo xam ne dama ko ci bëggoon a sànni ngir ubbeel ko ko ngir xasida yi nga xamne dañ ci ne di ci yëngu muy loo xamne dara ëpp ko ëpp ko solo ci sëriñ bi dara ëpp ko solo it ci ñun ñi nga xamne ñoy ñoy ñoy ay talibem yaakar ko aduna ak àllaaxira ngir mom sëriñ bi mo wax ne yeen murid na ngeen xamne seen jarignal aduna ak àllaaxira defal na leen ko ci xasida yi tay amna bis bo xamne kurelum kuréelum bi kurelum sëñ Masamba bi dañuy jang ba noppi mu ne leen na ngeen xam ne lii ngeen doon def keneen defut lu ko gën a ëpp solo tey ku ko fonkoon la fonk koo xam ne mën nañ ne nii ñu ciy barkeeloo ak di ko jàng moom noonu la ko daan noonu la ci daan barkeeloo daan ci jànge noonu fonkoon ko lool joxoon ko yitte lool ba nga xam ne sax buñ ko daan jàng da koy jaral muy daanu jël nii ko ñi ñi ñi nga murit yi di di tàggoog seen sago sëriñ bi xasida yi daana yëg ci moom ba mu tàggoog noonu sagoom ndax wax nañu am na gàmm goo xam ne sëriñ bi kuréelu sëñ Masamba bi dañuy jàng di jàng ba yàgg sëriñ bi daanu jël dugg ci kees yi di yanu gaal yi di leen jox ba dem ba amatul lum joxe mu waaxu génn kër gi bi mu génnee dem ba sori daal di dëppaat bi mu dëppee jub jub fere yi ñuy naataab leen ndax moom la am du moom waaye bi ñu ko jub bi mu leen jubee ñu xam ne moom la ñu jub di ko nuyu ku ko jox loxo mu la ndax jël bu metti boo ko joxee loxo mu ne la yow yow a nga ne ko mën a diw ak doomi diw mu ne la aaw baax na di leen nuyu ba ñoom ñëpp yegg mu ne leen ana kër sëñ bi fu mu nekk fii fu mu toll fii ñu ne ko agsi nga mu ne leen bunt bi laay laaj fu mu toll ñu jàpp ci loxoom ba ci bunt bi mu door a mën a dugg ci kër gi waaye jël bi jàpp na ko ba xamatul kenn xamatul sax këram këru boppam gi fu mu fàtt fu mu nekkati xasida yi it am na bis wax nañ ne mas naa woo sëñ Masamba woo sëñ Fall woo sëñ Mor Roqaye Bousso ran leen ay ndombu jaan ne leen na kenn ku ne indi xasida xasida yam am ñu dem indi kenn ku ne teg ko ci rombu jaan ci ñu tegee ba noppi sëriñ bi ne leen damay bëgg a dugg xalwatu bu xawlu xalwatu boo xam ne danaa ci yàgg ma bëggoon leen a wax sama xasida yi fu muy mujjee ak yéen ne leen sama xasida yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf maa xëy si xamal ma ne ma sa borom nee na bis ni ko tey def ak dindi nekkatul ci sa loxo nga jox ko sa xasida yi te ñëw yaa ngi moom ngeen déyaale daan ne sama xasida yi nga xam ne moom ngeen yor di ko fonk di ko denc ak di ko jàng bis bu ngeen faatoo bam mu dugal bañ dugal leen ci seen biir bàmmeel xasida yooyu dañuy def ay ay jëmm yu bokk nday ak bàyyi jiitu leen ci bàmmeel bi di leen berndeel di leen berndeel ba bis penc jot nee na ñu def ay jëmm noonu ñu ko defee jiitu ngeen topp seen ginnaaw ñu dox ba àgg ci kanamu sun borom di leen layal ngeen def cell buñ noppee ne leen dem leen tàbbi àjjana sëriñ bi daa mas naa wax ne nit ñi day fuñ jug jëm njariñ la ñuy wuti te njariñ man maa ko yore mu ne njariñ loolu duma ko def ci alxuraan kon naar yi jël ko wacc leen duma ko def ci werd kon tukkulóor yi jël ko wacc leen duma ko def ci julli kon na tiijaan yi jël ko wacc leen dama koy def ci sama mbind mi nga xam ne ku ma bañ waccal ma ko fi mas naa am koo xam ne bi mu wàccee liggéey sëriñ bi dana dem leen xoolal ma fu mu toll ci man bañ demee xool ñëw ne ko mbàkk bàyyi na fa aw fas akub lal bi ñëwee sëriñ bi ne leen loolu de taxul lu taxul may wax lu bokk ci sama liggéey bii moo tax may wax bañ demaatee ñëw ne ko lu bokk ci liggéey bi bàyyiwu fa dara mu ne bismillah loolu de ëpp naa def ne bu ngeen demee fas mu fa bàyyi na ngeen ko wecc ko dem xool kat bu rafet loxo mu bindal ko fukki bayit ak ñaar ci sama xasida yi ngeen moomale ko bala ngeen koo denc bañ demee ba def noonu ba ñëw sëriñ bi ne leen xanaa sama jëfi tey ji jaaxal na leen ñu ne ko lu mu néew néew néew bis boo faatoo bañ dugale ci sa biir bàmmeel lu ma gaaw gaaw naa fekk xasida yooyu la war ci yow def ko kon xasida yi nañ ko gën a fonkaat bu baax te gën ko warmaal xam ne xasida deesu ko teg ci suuf xasida deetu deesu ko def ci ay poos poos boo xam ne buñ la joxee caaf nga def ko ci buñ la defee tàngal jox ko def ko ci la jox nga def ko ci nga jël xasida lem ba comme këy dugal ci say poos loolu jaaduwul loo xam ne suñ njëriñal àddina ak alaaxira ci la nekk dañ ko war a fonk xam ne ku téyee xasida kilifa nga téyee ci say loxo fonk xasida yi di wut gëtt ga gëna neex ci gëtt yi di ko jox xasside yi tay wut neeg yi gëna sel ak barab yi gëna sel diko di ko assalamu alaykum wa rahmatullah am xel mu dalit bu baax ci xir gi len yalla xir ci dajalo di durus xaside seigne tu yi nga xamne lu waay dof-dof lu waay réer-réer xam ne xasida Sëñ Tuubaa yi goo ci xam ak goo ci xamut ñooy sowetaas yi war a sowe mbindeef yi nekk fii ci kaw suuf nekkal fi jëmm Sëñ Tuubaa ji nga xam ne ci zaahir gisatuñ ko xasida yi nga xam ne ñooy sëñ Tuubaa moo xam ne kenn du ne daa fatu kenn du na daa tëju jamono yoo ko fëggee rek mu wuyu la sax yoo amee problème bu ne cas xas dëgg sëñ Tuubaa taalif te sa pas-pas mate ko loo ci sakk mën nga ko ci am te yàlla xiir leen ci dus drus jamono yu nek yal nako ki tax ngeen koy jang muy serigne serigne tuba nangul lepp tay ji nak waxtan wi fi al ustad afiyatu ahmad nyang fasiyene def dafa aju ci buntu bu am solo muy khidma xam ngeen ne sëñ Tuubaa bi mi tag gaay yu bax yi as-sadatul amwat ci xes de giñ nan huqa newon na touba li abd murid صادق لهم بخدمة أو بحب aw hadiyaati àjjana ñeel na bépp murit bu aju ci sang yooyu may wax tuubaa texe li abdin ñeel na ab jaam muridun bu jëm ci yàlla saadixin bu dëggu lahu moo ñeel sëriñ soosu ma doon wax nañu koy amee nag mooy ñetti buntu boo ajoo ci ñoom day ubbiku ci sa kanam saa yoo jëbbuloo ñetti bunt ubbiku na yoo xam ne bunt bu ci nekk mën nga caa jaar ba ba mucc mën nga caa jaar ba la ngay wut ca kilifa ga nga mën koo am bunt bu njëkk bi mooy xidma mooy danga koy ñàqal liggéeyal sëriñ bi dana ñëw ci xidma mooy lan lu muy firi ak nu ñu koy defee bunt ba jarees mooy sopp sëriñ bi mooy aw bi xubbin bunt ji ba jarees mooy di yëkkati sa addiye di ko jox yéen nag ngeen tànn bunt bu jëkk bi te mooy xidma sëriñ bi dana ñëw ak yéen ci xidma mooy lan jëmmi baatu xidma lu muy firi waaye nu ñu koy defe kon ngir baña guddal dañuy jébal oustaz kaddu gi loolu moo tax mu nekk lu xidma moomu nag muy liggéeyal yàlla ay xeet yu bari la lépp loo defal doomu aadama mu amal ko njariñ loola xidma lañ koy tuddee mu nekk nag ay xaaj bi ci jëkk mooy xidmatul muslimin liggéeyal jullit yépp képp ku di jullit rek foo ko fekk jàpp ne yaa ko war a taxawal ci ay yitteem yaa ko war di liggéeyal loolu sëriñ bi dafa digal taalibe yépp ñu di ko def fu taalibe nekk ak mbokkum jullitam na jàpp ne mooy ka ko war a liggéeyal rawatina mbokkum taalibe rawatina kilifaam wa qiila in xadara yowmul baari وضرب الصراط فوق النار وكابد الورى الجوى والغمة نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين بأن يقال لهم منذ الجنة بغير محنة وغير فتنة فاخدمهم طرا لوجه الله فقط بلا من ولا تناهي سيج بنانا بيوم القيامة بنجاتش sirat ca kaw jahannam ba ñepp tiit ñepp jaq dana am kuy wote ne ana ñi da defal yalla ana ñi da jëfël yalla moy ñi da jariñ doomu aadama yi te yàlla rek tax ñi da jariñ julit ñi te yalla rek tax su baba ku ca bokkon ak fo mën nek da ngay wuyu bu ñu wuyoo ñom ñëpp ñu diggal leen ñu dem tabbi aljana leen yeen bu leen fekke coono bis penc mu ne kon yeen taalibe yi na ngeen sax yeen ñëpp ci li liggéeyal julit ñi te bu leen ci tàyyi bu leen ci yokkat te lu ngeen ci def na ngeen ko fàtte bu leen ko gestu mu ñaan yàlla xiir taalibe yépp ci ñuy sax di liggéey jur ñi wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma wa lahum fina hudan wa xayra wa kuffahum minna azan wa dayra ci biir jullit ñooñu nag ñuy liggéeyal da ciy am ñoo xam ñoo ci gën a yey mooy ñi la gën a jege te am àq yu dox sa diggante ñoom ñu mel ni say waajur ñu mel ni say mag ñu mel ni say kilifa am ñoo xam ne dañ koy yeyoo ndax fañ toll ci soxla ko mooy néew doole yi ak lompañ yi ak ña nga xam ne euh, mënuñu mënuñoo defal seen bopp kon ñooñu ñoo gën a yay ci liggéeyal leen ci mbooloom jullit mi kon bokk na ci taalibe gi ab murit fu mu nekk na jàpp na jullit yam nekkal moo war a daw ci seeni service moo leen war di liggéeyal moo leen war di jariñ mooy kon fu mu nekk rek moo war a doon seen sang kon bokk na ci xeeti xidma mooy liggéeyal boroom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi mooy xidmatul ulama wa saalihiin boroom xam-xam yi nga xam dañuy jëfe seen xam-xam ak nit ñu baax ñu sell ñi nga di leen liggéeyal te tax bokk na ci li sëriñ bi santaane bokk na ci xeeti xidma wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhumoo lillaahi jalla kulla xiin watlub duaahum wa minhum abada kun za tabarrukin fa tasdaadal huda fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arshi fi ma qad nuqil sëriñ bi nee na yow taalibe bi dool ziyaare tànnee fi boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy jëfe seen xam-xam ak nit ñu baax ñi te di leen liggéeyal euh, te di leen tey sàkku ci ñoom ñaan ak barke ndax nga dolliku aw yiw ndax màggal boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam ci màggal yàlla la bokk kon loolu tam bokk na ci xeeti xidma yi bokk na ci xeeti xidma yi mooy xidmatul masaayix mooy liggéeyal sëb sëriñ sëriñ bi lay jàngal wala mu di la tarbiya wala mu di la yéege nga di ko liggéeyal ngir sàkku ngërëmam loolu bokk na ci xeeti xidma wa in lil ilmi za فابتغي لله رضا المعلم إذ قيل إن نفع من تعلم نيط بإجلال الشيوخ العلماء وعد منها كونه محترما لشيخه وخادما محترما لأن بودا جان خم خم ولا جان القرآن نانغا ورمال كلاي جانغال تديكو لجيل داخل لجيل بانكو لجيل mooy tax nga am barke mooy tax nga am barke njàng ma ngay jàng mooy taxit it nga jariñu ëllëg ca la nga doon jàng mooy taxit bu ëllëgee yow boo dee ku jàngale ah, nga am ñu lay liggéeyal ndax noo def sa sëriñ noonu la la say donga di def waaw ah, fa kullu man lam yurdi shaykhahu fala yanaalu fi tilmisihi ma amala bu dee sëriñ bi lay tarbiya di lay yéege li yóbbu ci yàlla kooka it moo gën a yey ci nga liggéeyal ko moo tax muy wax naan wa gaayata tawqiiri waqir sheykhaka wajcalhu sayidan lahu hab xayraka waqdi lxawaaija lahu maa ashta bilbazli walxidmati ma stataata mu ne sa sëriñ bi lay tarbiya bi nga yaakaar jébbali ci moom na nga ko wormaal ba fa wormaal yam na ko jàppe muy sab sang nga jàpp ne yow ab jaamam nga lépp luy njariñ nanga ko ko jagleel deel taxaw temm ci faj ay aajoom loo am jox ko foo tool dee ko ñaqal sa kem kattan kon loolu itam ci xeeti euh, ma yi la bokk mooy liggéeyal sa sab sëriñ bi nga xam ne moom nga yaakaar def ko mu nekk sa wasila ci sa digganteeg sa boroom loolu itam ci xeeti xidma yi la bokk bokk na ci xeeti xidma liggéeyal diine yëngut ci loo xam day jëmale diine ji kanam lu mel ni di jàngale alquran walla di jàngale xam-xam wala di yar nit ñi ci diine wala ngay jàpp ndal loola di defar ay jàngukaay ak yarukaay aka defar loo fu ñuy jàmmoo yàlla ay jàkka ak i jumaa ak ya demee noona loolu itam bokk na ci xeeti xidma yi mooy liggéeyal diine mooy jëf luy saxal diine di ko yaatal di ko yokk di ko jëmale kanam liggéey bi ngay liggéeyal mbooloom jullit mi su fekkee la ngeen liggéeyal ci diine la jëm loola xidmatu diin la bu dee loo xam jëmul ci diine loola liggéeyal sam réew lañ koy tuddee lu mel ni ngay def ay fajukaay wala ay yoon wala ay teen wala lépp loo xam mbooloo mee koy jariñoo nga di ko def te yàlla tax loola dañ koy tuddee liggéeyal sa réew mooy xidmatul watan te liggéeyal sa réew mooy liggéeyal ba tey jullit ñi kon baatub liggéeyal lu yaatoo yaatu la loo xam ne fu nit ki wëlbatiku rek mën na caa nekk mu bokk ca la muy sàkkoo ngërëmul yàlla di ca hitam itam cofeelu sunu borom bu ko defee bu ñu waxee ne xidma dafa bokk ci cosaani yoon wi dañu gis ne kon mook yoon yi ñoo àndandoo ba yoonu murit juddoo la xidma juddu ànd ak moom sëriñ bi nga xam ne moo tax ñu naan murit moo ko def ànd kook taalibe yi nga xam ne ñoo ñëkk nekk ay taalibe murit keroo ba sëriñ bi sosee yoonu murit ca Mbàkke Kajoor woowaa daara ja wax ne ni koo xam ne njàngum kese moo la fi indi woon mën ngaa dem seeti fi ñu koy defe ba ñay dem dem ñay des des ba jaayante ñoom dafa ànd ak ñoom ci ñetti anam mooy di leen yar ci not sen bakan di xif di mar di wet, di ñaka nelaw eh, di baña wax lu amu njariñ sax ci nopi ci lu tuddu yalla kon ci jihadu nafs muy ben mu yar eh, not bakan yar bakan di len yar ci saxo tuddu yalla zikr tuddu yalla jang alquran jang ay qasida diko ko ak di tuddu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ak saso ay sas ci jaamu yalla yo xam ne koy taqoo waye nak di len liggey lo liggey bo xamne ne njariñ li cey juddo dañ koy mëna muñ jox ko ñeneen lool moy xidma motax ca bu jëkkoon taalibe yi dañ leen daan dox ay wér duñ ay kurus dugg ci àll bi ñu leen dox ay wér ay dog ñuy dugg xalwa di wérd di ca boole xiif ak mar ak wér noonu la ñu jëkk ña daan def nit yàlla yu jëkk ya sëriñ bi nag moom dalay xiir ci yooyu ci wéet ak tudd yàlla waaye nag da ngay dëkkee yëngutu di liggéey da ngay dëkkee yëngu foo toll di di liggéey bu baax a baax a baax liggéey boo xam day jur njariñ njariñ loo xam ne tam day dellu ci société bi nga xam ne ci nga nekk safaanub la xewoon bu njëkk nga xam ne ñi ñi daa wax ne ci yàlla lañ jëm ay sarax lañ daan dundee ak ndimbal bi yoon ñi jëm ci yàlla ñooy xettali ñane ci àdduna sa di ŋar-ŋar waaw ñoo yor seen bopp ba noppi wëlbatiku dimbalee ñoo ci seen ginnaaw muy lu yees lu sëriñ bi dugal ci tasawuf sakkal ko buntub euh, ŋàññi wala ayibal goo xam ne waaye na ko mën a ayibal ci ne day gannaawal mbirum mbooloo mi société bi euh, ak réew mi kon ba mu tàmbalee rek la tàmbali ci euh, tàmbali liggéey liggéeyal yàlla la la tàmbali bokk ci ci ci ci yoonu murit jëmmi sëriñ bi nag moo ko jëkkee ginnaaw bi mu bëggee yàlla mbëggeel gu jéggi dayoo boo xam ne fu mu toll ma ngay raas yoon wu koy yeggale ci yàlla di wër nit yàlla yi ak boroom xam-xam yi ngir bëgg ko ko yeggale bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeel gu jéggi dayoo euh, bëgg yërëmit xeetu lislaam yërmande ju rëy rëy rëy kon dafa daal di sóobu yoonu xam yàlla waaye dafa soobu itam yoonu liggéeyal yàlla ci jëmmi yonent bi sallallahu liggéey yonent bi sallallahu ndax liggéey xidma ki nga koy defal lu darajaam gën a kawe ki ngay liggéeyal ngir yàlla lu darajaam gën a kawe nga gën caa am ngërëmul yàlla gën caa am cofeelam gën caa am tuyaabay ëllëg ki gën a màgg kon ci ki ñuy liggéey mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi daal di sasoo liggéeyal yonent bi tàmbalee ko ca ba yoonu mu sasoo ca assasine la amoon yéenéy liggéeyal yonent bi solaasu liggéey bu ko kenn mës sa liggéeyal te kenn dootu ko ko liggéeyal mu wax ne awalu mabtada bihi alxadiimu taalluqun bi man lahu taqdiimu wa azhara alxidmata aama jayshasin wa qalbuhu admaraha min asasin nee na li mu njëkk def mom serigne bi moy fab xolam aj ko ci yalla bëgg yagg ci mom walam azal munzu aqaltu taliba maarifatan billahi yàlla taliba ne bam xamé xàmmee ndey jooram ak chamoyam te japp nañ ni musuko koo jaawale booba la defon xelam boba la amoon bëgg ci xam boroomam bi bind ak yagg ci mom pexé euh, mu mu diko def ni ag ci yalla mom euh ne kon lam def kon aj xolam ci yalla waaye lam ca teg nag mooy fas yéenee liggéeyal yonent bi liggéey bu kenn mës na liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal mu fas yéene ja nag ca assasine mooy at moom sosee yoonu murit waaye dëgg-dëgg liggéey bi nag ca nam ko bëggee nga xam ne dafa jagleel boppam liggéey yonent bi te bul ko booleeg dara loola moom ma ngi ko gën a fésal ca ba mu ca jay sosin mooy at mi mu tukkee ci géej gi gis nga kon ca at ab sasoom liggéeyal yonent bi ma ko tàmbalee ca bam sosee yoonu murit kon boobu la tàmbali moom xidma mu liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sax ci liggéeyal yàlla ak liggéeyal yonent bi ak liggéeyal jullit yi liggéey bi mu liggéeyal yàlla moo yeesal diine ji diinun si waa islaamihi laa inda ilaahi wa bihi nu jaddidu nit ñi réere seen boroom sàggane jaamu yàlla sax ci ab safaan mu delloosiwaat leen tegaat leen ci siraatal mustaqim jàngal leen yar leen yeesalaat diine ji ba mel na ko boroom na ko yàlla wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi kon loolu liggéeyal na ci yàlla ci diine ji ci alquran ci xam-xam ci jàngale ci yar ci xeetli doomu aadama yi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yeesalaatal ko sunnaam bil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu yamini alayha daynu xattin yuri sunan shafian kafaani duna durrin zayul baxi nee na am na fas na maa yéenee yeesalal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunnaam ba mu leer naññ ba mel na nga xam ne noonu la ko rëdde woon mu ne amel naa yonent bi bor ne danaa bind ci sama loxo ay xasida ay taalif yoo xam day wane sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral kon xidmaam ci njalbeen mi ko tàmbalee ci liggéeyal diine ji ak liggéeyal sunnas yonent bi ak liggéeyal jullit ñi ci xettali leen ci réer gi ñu nekkee woon ak yàquk jikko ak ñàkk fa seef ak yoonu safaan bi nga xam ci lañ jaaroon nga xam ne bu dikkutoon gàttandu leen ca safaan ba lañuy jëm wala yaasu billah kon xettali googu mu xettali xeet wi ràmm leen loolu bokk na ci liggéey bi mu liggéeyal jullit ñi kon ci njalbeen rek la sasoo liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ak liggéeyal jullit ñi nekk ci loolu ba def ci fukki attaque ñaar tàmbale ci assassin ba bay sasin cofeelam ci yonent bi tar lool bëgg gi mu ko bëgg liggéeyal not ko mu boole ci ay yeneeni mébét tax ko bàyyi am réewam bàyyi ay bokkam bàyyi ay taalibeem bàyyi lépp bëgg a dem fu ko kenn xamewul wéet fa ndax mu mën faa teewlu ba liggéeyal fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci taalif ay taalif yoo xam ne ci tagg yonent bi ak di ci julli ci moom taalif yu kenn mës sa def te kenn dootu ko defati qusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi allazi anhu lmadixu qasiru nee na këram yépp gent nañu njabootam yépp ak i taalibam tasaaroo nañu mu dem fu ko kenn xamewut ngir lan ngir mën faa jot boppam man faa wéet ba mën a liggéey yonte bi lim ko yéenee liggéeyal ci di ko tagg ak di ko ak di julli ci moom ci ay taalif yu kenn mës ta def kon loolu moom la doon def kon ca ba mu nekk ci géej kon di fa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di fa liggéeyal yàlla it ci di xeex ak noonu yàlla yi nga xam ne ñoo ko bëggoon a gàllankoor bëggoon diine ji mu nekk foofu di xeex ak ñoom ci ay taalifam jaahatu bil xatti adu wallahi ashata awaamin li wajhillaahi jaahatu bil xatti sinina waxdi man lam yakun muwaxidan za jahdi jaahatu bil xatti adu wallahi ashata awaamin bi zikrillaahi من عام جيشس لعام جكسس وقبل الجميع عام هكسش لو أنني لم أترك الكتابة مجاهدا بها ذوي العتابة لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا إلى الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه رب مهلك خناس سيدنا خيخنا ماك نوني يالي fukki at yoo xam man dong ak ñoom ci sama xalima di taalif ay taalif yoo xam ne day wulli yéefar yi di nooyal seen xol di wàcc ay musiba ki balaa ci seen kaw muy xasida yam doon bind ba mu nekk ci géej ga mu ne yeggoon naa ci foo xam ne su ma bàyyiwutoon a bind xeeti xasida yooyu yéefar yépp daañ yàlla na wàcc ay mbas ay feebar mu rey yéefar yépp buñ tuubut waaye bëggeewuma ko noonu bëgguma leen a rey not leen ba dootuñ gàllankoor diine rek laa namm moo tax ba ma leen notee ba ñu nooy ma bàyyee bind xeeti xasida yooyee ngir jëm jéggal leen ngir jëm yàlla mi nga xam ne moo ma reyal sama seytaane nga gis kon foofee mu nekkoon ca géej ga ma nga fa doon liggéeyal yàlla mooy di xeexak noonam yi koy yi gàllankoor diineem waaye ma nga fay liggéeyal jullit yi ndax ma nga fay sàkku daraja ak maqaama yoo xam ne bu ko ci yàlla jotalee dana ramm aw xeetam bu ëllëgee wa an akoon shafian li qawmi loolu bo xeet bi bokkoon ci li ko taxoon dem ci géej gi di ko liggéeyi kon ndeke xidma bi mu fi nekkee woon ci biir réew mi muy liggéeyal diine liggéeyal yàlla di ko di jihaaral di ak noon yi ci jàng ak jàngale ak tarbiya inni ujahidu bil ulumi wa bittuqa la doon def ak noon yi fii ci biir réew mi di ci liggéeyal yàlla di yeesal diine di liggéeyal yonent bi ba tey ci bind ay xasida ak yeesal sunnaam di liggéeyal jul ci xattali leen ci réer ak bidaa ak yoonu alkande gi nga xam ci lañ jaaroon loola la wéyal nekk ko ca juróom-ñetti ati géej ga ba ni mu ñibbisee bi mu ñibbisee itam mu wéyalaat lam nekke woon ba mu demagul ci géej gi ci ñetti xeeti liggéey yooyu kon tekkiwul laxasaayam ci liggéey ci xidma ci liggéeyal yàlla ci liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal jullit yi diirub li mu fi nekk ñu ko gis ci zaahir zaliltu aabidan xadiman lir rasul min aami aysasin ila aami rahil kon noonu la sëñ bi dëkkee xidma saxoo ko ca tàmbaleem ba ci ak mu jam ci zahir lépp ci xidma kon la ko nekk boole ko ibada jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi ak liggéey liggéeyal yàlla xam ci la tudde abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ci xidma boobu it la taalibe yi nekk ba ñu jébbuloo lañ tàmbalee xidma benn taalibe buy teg masa tekki laxasaayam kero bam jebulo bani mu aduna amul wa kon ñom bañu tu tuub rek ci sëriñ bi boba lañ tambali tak la xasaayu liggéey liggéeyal sëriñ bi ci lépp lu mu soxla ci xéati liggéey ci gor ay alla bay ay tol, tak ay nek rot setal doxi ay yité yanu ay gal bind jang, jangale lepp lo xamne rek lu leen bi liggey lola dañuy sax ci lola diirub lañu nek ci loo xam di tarbiyaw su fekkete ni yawi na len dañuy soppi aw liggéeyin waye fuñ man di nek sëriñ ba lañ fa nekkal mom lañu liggeyal duñ tek seen la ñomit seen giirub dundu kon nonulanyu, lañu saxé ci xidma ñom talibé ya seen giirub seen kon loolu mooy ni sëriñ bi dunde xidma ci gàttal taalibe yi dunde ko noonu ci dem bi yoonu murid ci taarixul muridiya bu ñëwee nag ci tey nga xam ne mooy li ñu gën a yitteel ndax mooy la la la def def def nañ ko ba noppi tilka ummatun xad xalat laha maa kasabat wa lakum maa wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun xidma ci jamono jii nu nekk bu ñu xamee ne xidma te mooy liggéeyal yàlla walla liggéeyal sëñ Tuubaa dafa doon lu mënta ñàkk ci yoon wi nga xam ne képp ku di murit boo tëkkut laxasaayu xidma ak loo mën a def secteur bi duñ mën a jàpp ne wér na kon jamono ju nekk war nañoo càmbar mbirum xidma moomu xool ko ci suñu jamono xool sas yañ ca war a bay ñu jéem koo bay ci jamono jii nu nekk dañuy wax ne sasi xidma yi nekk suñu kanam yu bari lool la xidma yi nga xam ne moom la sëñ bi daan digle naka jekk mooy xidmatul muslimin nga xam fu ab akub jullit mbaa sax doomu aadama ndax doomu ji nga xam sax du jullit wala sax koo xam du doomu aadama la waaye mi ngi toll ci ay tolluwaay yu metti yoo xam ne ku ko xetliwut mu alku nga ko ngir jëm yàlla loolu yërmande lay tekki loola des ci texee kon xidma liggéey doomu aadama ci bopp nag laay wax sax far xam kon taalibe bi na war a jàpp ne fépp mbooloo mépp mu mu nekk na jàpp ne mooy ka leen war a liggéeyal mooy ka leen war a jariñ ñu farlu kon ci liggéey jullit ñi kon loolu aw sas la wu ne ci suñu kanam fu ñu mën di nekk ñu jàpp ne ñoo war di liggéeyal suñu bokki jullit ak suñu moroomi doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañuy jaxasool ngir dëggal ñaan gi sëñ bi doon ñaan ne wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan ar rahma waaye di liggéeyal it nit ñu baax ñi ak fu waay baaxe fu waay nekkale diine nga di ko liggéeyal uh, ngir jàppale ko ca la mu nekk muy xidmatul ulama wa saalihin loolu itam aw sas la boo xam ne wu taxaw la uh, waaye li gën a yitteel te mooy liggéey sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne moom lañ yaakaar tey ak ëllëg sunu xettaliku ne ci loxoom mu defal nu loo xam ne bu nu juddoo di ko liggéeyal ba ba ñuy faatu duñ ko mën a delloo la gën a tuuti ci njukkal duñ ko man liggéeyal sëriñ boobu ñu xool tey jii yan sas moo ne ci sunu kanam ñu war koo bay ci wowaar dañu gis na ay sas yu bare bare bare bare ñu ngi ci suñu kanam ci ñu war a liggéeyal sëriñ bi bokk na ca xidmatul ayaal njabootug sëriñ bi ñi nga xam ne ñoom lañuy tudd di tudd sëriñ bi ñu bokk ci deretam di ay sëtam walla ay bokkam nga xam ne Euh, ñoom lañuy xoole jëmmi sëriñ bi ñooñu lépp luy soyeeni yitte ñun ñoo ko war a gàddu kon war nañu liggéeyal njabootu sëriñ bi maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom la ñëpp yore ci taalibe bi sëriñ bi sëriñ bi la la doon liggéeyal moom ci boppam ba mu fi nekkee ñu bokk nekk ci biir réew mi mu sax ci di ko liggéeyal waaye bi sëñ bi damay ci géej gi liggéeyam bépp da ko wëlbati jëmale ko ci taxawu ñi njaboot gi mu bàyyi ginnaaw njaboot gi sëñ bàyyi bàyyi ginnaaw dafa sax ci di leen liggéeyal fas yéene demu sëñ bi du jeexital ci seen dund Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi wax ne mi ngi fàttaliku gëléem ya Cheikh Ibra daan sëf ñu jëm si Mbàkke ci njabootu sëriñ bi euh, ngir taxawu leen euh, loolu am na kenn ci mag ñi ko xamoon di ko martial ginnaaw bi mu fi bi mu wàccee liggéey muy sëriñ Moulay Bousso ma ngay wax Cheikh Ibrahima ni leen taxawoo njaboot gi wa man li man lil dafa wax ne wa man li xidmati jam bi cheikhi muxtasiban yaataaduha ولد الأقران ما ضعفا كان موادي نكيت كي أدنى جرب سيخي بردمي كان موادي نكيت كي أدنى لجيل سرين بي دف لجيل سرين موي متيم تدوجة تاي دوجة صرنو تكن دوكا تمان من للعيال بعيد بعيد الخل من لذوي الحاجات من لليتامى بعد والضعفاء من جنا سيخي بردمنا kan mooy taxawooti njabootu sëriñ bi kan mooy taxawooti boroom yitte yi amut ku leen ko fajal kan mooy taxawooti ñu new doole ñi kan mooy taxawooti ñu ñàkk ñi kon liggéeyal njabootu sëriñ bi ci lépp luy seen aajo loolu sas sas la wu taxaw ci sunu kanam ndax koo xam da nga amee bor ci fiq dañ naan la danga ko war a fay àtte bor fay ki nga ameel bor boo gisee jëmm ja bor ba moom nga koy jox soo gisul jëmmam doomam nga koy jox soo gisul doom ja sët ba nga koy jox kon li ñu war ci suñ diggante sëm ci liggéeyal jëmmam ci sonnal ko buñ ko gisul ci zaahir ay doomam lañ koy defal buñ ko gisul defal ko ay sëtam defal ko ay ay bokkam ndax loola mooy Euh, warugar wi nga xam ne war nanu ci suñ diggante ak moom ci yaakaar gi ñu ko yaakaar ak fi nga xam ne fo fi la nu féete ak lim nu defal kon liggéeyal njabootu sëriñ bi ci saa suñ soxlaa ku leen liggéeyal ak xeetu liggéey bu ñu mën a soxla bu sunu taal bi déggoo fu ñu woo ci liggéey war nañ leen fa wuyu te luñ soxla war nañ leen koo defal te waruñoo xool ñoom nu ñu mel baa lu ñuy def baa lu ñu defut ndax yow mi ameel bor nit war ko koo fay moom jox ko doomam jox ko sëtam bul xool bor bi su ma ko joxee doom ji boo tudd nangam la koy def ak yooyu sa yoon nekk ci fayal bor bi rek moo la war léegi nag ka nga jox bor ba moom bu ëllëgee mook euh, ka ko kam ko kam ko téyel ñooy lijjanti bu ci lijjanti waree waaye mu fay bor war moom fayal bor bi rek kon liggéeyal njabootu sëriñ ba xidmatul ayaal bokk na ci sas yi nekk ci suñu kanam ñu war koy def ndegam suñu taalibe dëggu na ci noonu ñaar xam nga liggéeyal sëriñ mooy dàkk ak bëggam loo xam moo la ko digal loo xam moo la ko digalal boppam defal ma nàngam nga dem def ko mbaa digalu la ko digalu la digalu direct waaye xam nga ne nangam ak nangam ak bëggam la nga di ko ko dàkk nga di ko dàkk ca loola ñaari xidma yooyu ñoo am sëñ bi digal yi mu fi bàyyi woon ci lu mu wax ñu dégg mooy bu noppeeb liggéey nañ na ko Cheikh Moustapha indi Touba ndigal la lu mu ko digaloon mom jëf nako kan nako yalla fayal te dol na tass ci barkam te doli ay ngeeramam ak liggéeyub jumaay touba yi nga xamni mom itam joxe woon ndigal li ko fi ñu war ko sotal yeneen liggéey yi nag lu ñu ne ak bëggam la gu mu daa waxe di ko bind ñu ñu di ca dàkk ak bëggam loolu nag buñ ko seetloo dañ ci gis ay sas yu bari lool bokk na ci sas yooyee liggéeyal sëriñ bi ci dëkkam bii sëriñ bi dafa sañ ci muy barab bu barkeel bu sell bu leer bu mu yéene woon ne ba mu ko sañcee mooy doon fi muy dëkk ak boroomam bis bu noppee ci liggéeyam yéene woon it mu doon dajekaayu murid yi di seen pay payu di seen pay mooy seen capital mu am nu mu bëggee woon dëkk bi mel ko mu bind ko ci ab xasida gu mu tuddee matlabul fawzayni wax ni mu bëgg dëkk bi mel ko njabootam gu tedd gi tàmbalee ko ci xalifaam ya kenn ku nekk boo toogee nga jël téere boobu def ko ci sa kanam teg ko ci sa kanam di dox ci lu sottal bëggug sëriñ bi ci dëkk bi ba ba ngay ba sab liggéey di noppi nga xam ne loolu ma nga tàmbalee ca Cheikh mi indi sëriñ bi ci dëkk bi te ñëwug sëriñ bi ci dëkk bi mooy dundug dëkk bi ndax fu sëriñ mënoon nekk tey ci kaw suuf foofa la murid yi jëm fa la nekk te loolu bu ah, bu nekkoon feneen yeneen bëgg-bëgg yi sottal ko dana jafe kon mu indi ko fii ci Touba teg ca suufus tuubaa sii di dëkkam bi mu fexe ba mu doon suuf su ko lew ci zahir ni mu ko lewee ci baatin mu jot ko ci alal ñi ko wuutu ginnaawam yokk ko ba mu àgg fi mu àgg tey nga xam loolaa waral tey atte bii njabootu sëriñ bi am ci Touba ak sañ-sañ biñ ci am ñu man ko cee am loolu lépp ngir sottal bëggug sëy nga xam tey Tuubaa àtteb kër la nga xam lu neexul boroom kër ci kër ga kenn du ko ci def wala ku ko ci def yoon mën a dal ci sa kaw ak yoon wu mën a doon loola di liggéey bu rëy la ca toppaat nag mooy di di yeggale yéene sëriñ bi ca nam ko bindee ca mat la aw sas wu rëy kon ay sas yu rëy rëy ñu ngi ci Tuubaa yoo xam ne ku ci nekk ci noonu am na foo ci war a mën a dal tambale ko ci kaaraangeeg dekk bi ñi tuddee sécurité ab dekk ña fa dekk bu ñu amul jamm ci seen bakkan ak seeni alal seenu dekk du mëna soti sotti moo mi ñaanon bi am fi wa wajal harimana, haraman amina wa kun bi hadzihi kafilan damina kon kep ko xam yaangi ci luy aar dëkk bi ci luy def kaaraangay dëkk ba ñu fi dëkk seeni bakkan ñoŋ ak seeni alal ñoŋ yaa ngi liggéey sëriñ bi ci dëkk bi képp kuy tax kuy liggéey ci lu yokk wér-gi-yaramu waa dëkk bi ci ci indi cet cet gi nga xam ne mooy tax ak wér a am ñaare ak ak liy tax bu wér di amee ñu mën ko mu faju muy ay ay barab ay fajukaay kep ku yëngu ci loolu yaa ngi liggéey bi ci dëkk bi wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha kon wér gi yaramu dëkk bi akuk catam ci liñ mën a liggéey bi la bokk waaye yokk koom mu dëkk bi ba mu yaatu lool bëgg-bëggu bi la mu ñaanoon ko وكثرا خيرات هذا البلد آه، آه، وكثر خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي واجلب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الافات كون كيب كو خم يانغ يونغ يانغ يينغو سي لو يوك كوم كوم دك بي سي انام غو داغان غو جار يون يانغ ليغيال باتاي سيرين بي فوفو تام اوسا سوري ميغي في waaye liggéeyal sëñ bi ci def dëkk bu nekk dëkku xam-xam dëkku xam-xam bokk na ci naal yi fi sëriñ bi bàyyi woon sëriñ Mbàkke Buso wax ko bind ko ci xalimaam wax ne ñetti bëgg-bëgg la xam moom yu fi sëriñ bi bàyyi yoo xam ne bi muy ñibbisi Tuubaa sotteegu bëgg-bëgg bu njëkk bi mooy aji màkka da ca amoon gàllankoor ndax tubaab yee ko ci gàllankooroon bu ñaareel bi mooy tabax jumaay Tuubaa def jumaa ci Tuubaa joxe woon na ci ndigal bañ tàmbali ko ci teewam mu am gàllankoor liggéey bi taxaw ñu war koo sottal ginnaawam mu ñaar ñetteel bi mooy daaray xam-xam ci Tuubaa joo xam ne bu sottee mooy doon jàngukaay bi gën a rëy jànkaayu lislaam bi gën a rëy ci sowu jant nga xam fenn fu nekk ci réew yi rawatina réew yi sowu jant dañ fay laxas di fi jàng si loolu yéeneem la woon ñaan na ko boroomam bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yazulu l aza wal jahlu wal kabadu mu ñaanoon yàlla def dëkk bu nekk dëkku xam-xam waccaanu da ban maskana taallumi وموضع الفكرة والتفهم وموضع الإسراء وموضع الإرشاد ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم اسم برو ماغي نيان سما دك بيغا ديفال ماكو مو نيك دك خم خم دك خم خم دك بو خم خم دا في دوندو دك خلات اك گيس dëkkub jubbanti ay xalaat ak i njuumte ci anam gu mën a doon dëkkub gindee ak leeral kon dundal xam-xam ci dëkk bi ci des def ay jàngukaay ak jàngale ak yare bokk na ci sas yi nga xam ne mu ngi ñuy xaar ci dëkk bi te loolu bari na ñoo xam ne ñu ngi ciy bay ay waar yu yaatoo yaatu waaye ba léegi àggagul fa ko sëriñ bi bëggee yeggagul foofa euh, loolu itam kon sas wu yaatoo yaatu te xam nañu ne jafe-jafe bu rëy rëy am na foofu ndax xam nañu ne sëriñ bi bi mu dikkee tàmbali ab liggéeyam dafa fekk tubaab yi not réew mi daan ceddo yi ak sëriñ si doon jixaar ba defee ne moo moo ci moo ci nekk ba jàpp ne li ko dese mooy not nit ñi wëlbati leen ci seen diine ak seeni aada ak seen cosaan ak seen lépp lu ñu am dëppale leen ak moom jox leen diineem jox leen aadaam jox leen ci sante loolu mi ngi ko doon jaare ci am njàngam ci njàngale ma ko yaram ci la ko doon jaare sëriñ bi xam loolu daal di nag taxaw nag jihaar ak tubaab bi ci googu wet moom ci fas yéenee sosum njàngale akub yar bu wuuteeg njàngale tubaab bi akub yaram inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaiminu shaahidu tubaab bi loolu la xamoon ba nanguutoon a bàyyi sëriñ mukk ci sagoom mu def ab liggéeyam tuuma yi ñu doon tuumaal sëriñ ba tax ñu koy génne ci réew mi mooy na dafay waajal ar armée bëgg dal ci tubaab bi ngir génne ko réew mi sos fi nguurug lislaam dem na ba mu wóor ko ne ay sos la ak i wax yu dul dëgg waaye taxul mu nangoo bàyyi sëñ bi nag diirub lim nekk ci jamono ci zahir da ko téye di ko gàllankoor ndax lan ndax xam ne lim ne li muy def muy njàngale mi ak yar bi muy def bu sottee moom tubaab bi li bëgg dara du ci am mu nekk kon bëre bu dox ci digganteem ak tubaab yi ak noon yi def ko ba ñibbi tubaa ñi ko wuutu wéyal liggéey boobu bëgg aar njabootu sëriñ bi ak taalibe yi jàngal leen yar leen njàng ak yar bu dëppook moom sëriñ bi loolu moo dem ba e, tax ñu dem ba jëmmi jamono ji ñuy waxe nii ci Sénégal Touba nekk dëkk bi gën a rëy ci Sénégal ginnaaw Dakar ci ay nit yu fi dëkk ba noppi école publique amu fi école publique boo xam ne ci système euh, bu bu euh, bu bu officiel bi la amu fi amu ko fi waaw amu fi ndax lan kilifa yi ñoo ko fi nangu wut demoon nañ bari ko fi waaj ñu tëj ko loolu li muy tekki te xam nañ ne waa Touba mënuñoo ñàkk a jàng mënuñoo ñàkk a yaru te ba fi mu nekk ne amaguñu ay jàngukaay yu doy amaguñu ay yarukaay yu doy te loolu aw sas la kon ñu war amal am jang, akub yar boo xam ne lu ci waa dëkk bi soxla lu mu bari bari danañ ci mën a jot seen aajo ba man cee lawal loolu ba mu daj e, fu fépp fu taalibe mu di nekk jot ci njàngaleem sëriñ bi akub yaram loolu di sasu wu rëy rëy boo war nañ cee liggéeyal bi kon ci jàng ak jàngale ak yar ci xeeti jàngale yépp ak ci xeeti yar yépp euh, ndax xam nañu yar te buñ ko waxee wax daari tarbiya mooy li gën a bees ci li sëñ bi indi jàng alxuraan lañ daan def ak jàng xam-xam waaye tarbiya moom daari tarbiya xamuñu ko woon ñu ko fàtte woon daari alxuraan lañ daan wax daari xam-xam moo indi daari tarbiya di ci defar nit loolu it di loo xam ne mooy mooy tëgg ab taalibe ba mel melokaan woo xam ne ku ko gis xàmmee ko lool it di lu war a sax war a yaatu war a law ñu war cee liggéeyal sëriñ bi kon loolu it aw sas la aw aw aw waar la wu yaatu wuñ mën a liggéey sëñ mooy ci liggéeyal ko ci jàngale ak ci yar bokk na ci sas yi ñuy xaar ci liggéey sëriñ bi mooy wattu ndonol xam-xamam li sëriñ bi bind taalif ko ci xam-xam ak i xasiida ak i dénkaane li bind lépp ci xalimaam daal nga xam ne mooy ndonol xam-xamam ak li nga xam ne lépp taalibe yi bind nañ ko ci sëriñ bi li sëriñ bi bindal boppam ak li taalibe bind ci moom nga xam ne mooy ndonol xam-xamu yoonu murit sàmm ndono loolu ak jottali ko àdduna sasu wu la wu am te ba léegi nag dalaguñ ko moom dalaguñ sasoow ndax ba fii mu nekk nii xàmmeeguñu li sëriñ bi bind ak li bindul bi su set nga gis lu bees lu ñu ne sëriñ bee ko wax nga ne ba yàgg am ñu dégg ñu ne waxuñu ko nga xam ba fi mu ne xam ràññeleeguñu li sëriñ bi wax ak li mu waxut li bind ak li bind ba léegi ràññaleeguñ ko li mu bind ci boppam itam di ko jottali nit ñi tam mu dëppoog na mu ko bindee woon amagul téere boo jël di ko jàng xët woo ci jàng da ci gis ci ay yàq ak ay wuuteeg na ko sëriñ bi waxe woon loo xam ne mëneesu ko takk nga xam ñu ngi jàng ay xasida di jàng ay téere te nañ la jàng ak la sëñ bi bind du benn ndax ñàkk a sàmmonteeg nañu war a bindee ak nañu war a wérale mbind ma bu loolu lépp jàllee lañ ca jot bind ak la ci nekk lépp ci ay gàttañlu ci ñun la yam boo génnee ci àdduna si dem ci biir bibliothèque yi ci àdduna si doo fekk téere sëñ bi doo fekk benn téere bu mu def ci njàngale diine doo fekk benn téere bu mu def ci tag yoon ci mbaa julli ci moom ndax lan euh, norme yi war na ci téere ba waa àdduna jàppe ko téere ba di ko tasaare ci àdduna defuñu ko defuñu ko kon foofu it liggéey bu rëy mu ngi fi ci ñu fexe ba mbindum sëriñ bi ñu ñoŋal ko jottali ko waa àdduna ba mu daj tépp ndaxte bu dajee rek loolu mooy doon yaatuk liggéeyu sëriñ mooy doon tasaarook yoonu murit kon foofu it liggéey bu rëy a ngi fi boo xam tàmbaleeguñ ko daanaka bokk na ci sas yi ñuy xaar yaatal yoonu sëriñ bi tasaare yoonu murit fenn fu nekk ci àdduna si taalibe yaa nga fa ci Afrique ci Europe ci Asie ci Amérique waaye buñ xoolee limub taalibe yi ne ci bitti ak benn benn yi dugg ci yoon wi te bokkuñu woon ci ñoom dañ naan yoon wi doxut daa taxaw ay benn benn yu néew a néew néew ñooy dugg ci yoonu murit te ñu ci bari buñ duggee dañuy génnaat waaw kon dañoo am jafe-jafe jottali yoon wi am nañ ko am na jafe-jafe ci jottali yoonu murit ndax eh, am na jafe-jafe ci ci dugal ci nit bu ñu waxee ba dugal nit am nañ jafe-jafe kooku ba mu sax ci kon war nañoo xoolaat suñ bopp ba xam fan la rëq-rëq yi nekk ba mënuñoo yaatal yoon yi na mu ware te kat bu dee seet dañuy gis ne neexut ba neexut jéego yi yoon bi doon séqi ca njalbeenam da caa mujj taxaw gis nga bi sëriñ bi ñibbisi si Touba Cheikh Moustapha di nekk xalifa booba yoonu murit génn na Sénégal Mauritanie gii booba ñu baree baree bari ci Mauritaniens yi doon nañu ay murit turu sëriñ bi mag bi àgg àgg na Égypte ak i taalifam ñu mool ay téere yu sëriñ bi taalif ci Égypte yoonu murit àgg Xijaaz ba waa ah, Makka ak Madina di yebal ay délégation yu ñëw ci njaareem ci sëriñ bi di ko sàkk mu ñaanal leen ci seeni jafe-jafe xettali leen ñoom gëm nañ ne sëñ bi mooy xetlikatu jamono xam nañ ko waaye gis nga loo xam ne kon ci jamono sëñ bi la génnoon réew mi bu fekkoon noonu mu doon doxee kon noonu la doxee nëgë waroon naa yaatu lool ci monde islamique bi yaatu lool ci àdduna si waaye ba léegi loolu amul kon am na jafe-jafe ci jottali yoon wi buñ ko jottalee itam ña cay jot bay dugg si buñ dikkee ñu téye leen ah, loolu aw sas la woon ci suñu kon daal mën nañoo wax ne liggéey sëñ bi ay sas yu baree baree baree bare mu ngi ci suñ kanam yu yitteel te taxaw temm ñu war koo taxaw euh, te ba léegi am na ci yoo xam daa mel ni sax dañu jàpp ne bokkul ci sas yi wala xel demu ci kon maa ngi jégalu ci guddik wax ji waaye thème bi ñu doon waxtaane moo mel noonu te yitteel te lu bari aju ci ci buñ ko defee nañ ko war a defee lu bari mën a sooxe ci bu fekkee defewuñ ko nañ ko war a wala xamuñu la nga xam ne mooñ ci xaar kon ñu ngi jégglu guddaay bi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barke borom Tuubaa mbokk yi mu mel ni kon ni mu ko àndee woon ak yéen ci ngoon ak léegi ci euh, ngontum xasida mi nga xam ne nii waa Minanul Baaxil Xadim ñu ngi ko doon amal fii ci Daaru Xuddoos mel ni ñu ngi door a liggéey bi euh, ci loolu ñu bëgg a ak ay kàddu ak jëwriñ yi nga xam ne ni ñoo ŋànk liggéey bi mel ni taxaw nañu ak kenn ci ñoom di Sëriñ Maxtaar Diop gannaaw nuyooyu ak ziar yi ak ndokkeel yi ndax mën nga ñoo dikkal tuuti ci liggéey bi nga xam ne ni yéen a ngi ko doon def juróom-ñetti at naka la nosoo ginaaw bu ñu nuyoo ñëpp di siyaare ñëpp ñi ngi sante Serigne Touba baax ci katan gi ñu defal ba liggéeyam bi ñu man ko téye agalé ko fi nga xamné euh, suñu yéne ag na fa ñu man ko fa agalé di ñaan baax suñ suñ borom gëna doli katan kattan yi man-man bi gëna doli dolli pasteef yi ba fañ ko bëgg agalé fep mu ag fa ndax am nañ ci yéne bu baax yéne rek lañ ci doxé waye man ban bi ag àggagul fofu mhm. di fatalé kurel bi kurelu Minanul Baaxil khadim la bo xam mi ngi sosu 2010 boobaak léegi toll na ci juróom benni at bi mu sosoo dox na lu mat benn at ñi taseeg suñ jëwriñ ci xasida yi sëriñ Xamsatu Mbàkke moom moo ñu jox turu nu Baal Xadim jox ñu ndigal ci ñi ci ci ñu ci ñu di ko durus euh, moom moom xasida googu waaye yàlla dogal na euh, kuréel bi it wut ci ne rek xasida Minanu Baal Xadim rek la ñuy jàng waaye mbooleem xasida yëpp liñ ci man dañ koy jàng waaye wut bis bi nga xam ne ñu ngi koy waajal am na ci lim boo xam ne dañ koy jagleel Minanu Baal Xadim bu ko defee ñetti weer yi ñu koy waajal yëpp dañ koy jagleel Minanul Baaqil Xadim bu ko defee lim bi mën a mat bi nga xamee ne euh, sosu na ñu ko waxee woon bi ñu amee tur wi ak bi ñu commencé liggéey bi yàggut ndax liggéey bi ren la ci juróomeelu at ñi di ko def waaye it ñi ngeen ko gisee rek noonu lañ ko defee waxtu wu jot mooy dañuy euh, dajalo suñ mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di jàng xasida te xasida yi ñor leen ñoom ñëpp ñi woo leen dajal leen ci menn ngontu moo xam ne ñëpp dañ koy àndandoo àndandoo durus xasida ak alxuraan lépp ñu àddaale ko Serigne Touba nga xam ne kon bis bi amut kenn kuñ ci cërle leen lu dul Serigne Touba amut euh, koo xam ne dañ ko koy tudde wala koo xam ne dañ ko dañ ko dara jaal di sàkk yoon dara waa leneen ak leneen lépp lépp rek dañ koo tàmbalee sëñ bi daal di koy yemale ki Serigne euh, Serigne kon man ne bis bi nga xam ne njëkk nañ ko def ñu ko jàpp 2012 euh, booba ki nga xam ne moo doon def waxtaan wi mooy sëriñ Afia nga xam ne kon bañ ko dalee def ba léegi moom waxtaan wuñ ci def moom moom moo koy wax moom moo koy waxtaan jànkat yi nga xam ne ñoom ñoom lañ fi iwte it waxtu wu jot ñoom ñoo ñoo koy kii 2013 euh, it def nañ ko ak 2014 ak 2015 ak 2016 euh, bii kon mooy juróomi at yoo xam ne euh, ñu ngi ci jàpp liggéey bi te it li ci doxee pas-pas ak yitte juma sëkk donte. ñu bëggoon xam sëñ sëñ Diop ndax euh, Minanul Bal Xadim ngont mi rek la ñuy taxawal wala yeneen bis yu mel ni màggal ak yooyu ndax yéen a ngi wéyal seen i yëngu. waaw jërëjëf laaj bi am solo ndax Minanul Bal Xadim euh, ngont mi da cee euh, wàll yan waaye taxu taxu ko woon a jóg maanaam kuréelu durus la boo xamee ne guddig ajjuma gu jot dañuy dajaloo ci sées ba bu ko defee durus ba ba mu guddi ñi ñaanalante dem ba beneen yoon yàlla dogal na it. Euh, diirub 2010 ba léegi amul yenn guddi ajuma yoo xam ne fàttali ko nañ ci boo xam ne jëlal nañ ko moo xam màggal la moo xam lu mën di xew dañuy dajaloo di durus donte ñett ñi dafay teew da da dañuy dajaloo kon man ne kon gont mi ci xal ci xalaat la yoo xam ne da ca yokk waaye dëgg-dëgg eh, eh, ngont mi Eh, xas eh, kuréel bi taxu koo na taxu koo na jóg waaw Moustapha Fall gannaaw kàddu yi am solo yi nga xam ne sëñ Maxtaar wax ci eh, li nga xam ni mooy liggéey bi ngeen di def muy Minanul Baaxil Xadim rawatina ngontum xasida mi nga xam ne koy amal diir bu yàgg ba léegi mel ni bu ñu déggee say kàddu léegi yéen ci membre fondateur yi ci ngeen bokk lan nga nu mën a relater tuuti ci historique gu mbooloo mi. ok jërëjëf ñu ngi leen sant bu baax te di leen gërëm ci seen teewaay yéene ci barab bi. ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni ci ngoon ba léegi yéen ko ànd ak euh, daayira ko kuréelu mi doon baax xadim euh, historique bi nag comme ni nga ko waxee daanaka sëñ Maxtaar leeral na ci lu bari euh, kenn si jëwriñ yi ñu naan ko Serigne Cheikh Ndiaye mooy bu naaf bi ci moom la xalaatub daayira bi soso bi mu sosoo nag jàng nañ nekk nañ di def guddee ju ma gu jot ñu daje di durus lu mat ay weer ñenn ci mbooloo mi kenn ku ci ne di xalaat. daayira bi nan lañ ko war a tuddee ñii di joxe turu Mawahibou Nafi ñii di joxe turu Jaalibatul Maraaxib ñii di joxe turu um, Faadil Bisri kenn ku ne ak xasida ga gën a jubu nga joxe turu waaw léegi nag biñ ci amee ñàkk déggoo ñu daal am ku ne ci mboole mi nañ bàyyee ak suñu bopp sëriñ bi rek biñ bàyyee suñu bopp ak sëriñ bi nag ba benn bis uh, ñu dem benn kuréel boo xamante ni Euh, euh, benn mbokk mu doon mu doon organisé euh, ngontum xasida ñu dem far daje fa ak sëñ Amsatu Mbàkke am sëñ Suhaybu defe naa sëñ Mohamed Amar wala kenn ci mbooloo mi ci moom la xalaat bi jógee ne nañ gis sëñ Amsa wax ko suñ taxawaay bi laaj ko ci ndigal ngir turu daayira bi biñ ko ci laajee boobu man ma maa ànd man maa ko doon laaj maak sëñ Mohamed Amar ñu mu toog ab diir maanaam boo xam ne waxut kenn ak lu mbooloo mi bari bari am yàgg maa ne uhuh, mi na nu baaxil xadim fii moo ji zaati raaxil maxdum nga xam ne booba bokk na sax ñenn ci mboolem ñoo xam ne bis boobu lañ njëkk a xam xasida mi na nu baax xadim foofu yi la la la turu daayira bi jógee loola mi ngi amoon ci jamono yi 2010 euh, booba sëñ Alaaji Baara Mbàkke mi ngi fi yàlla sunu borom yokki leeram bu baax foofu daal euh, booba léegi nag ñu ngi koy taxawee guddi ajuma ko jot di def ay euh, di durus jàng xasida programme yi nga xamante ni mooy am ci yoon wi muy màggal yi wala ci ci euh, bi ci xasida yi lépp it dañ koy teewee ak fu mu mën a am ci ci ci ci réew mi ak ak ci ak ci ak ci dëkk bi. mu mel ni euh, jëf ju am solo ji ngeen def tey ci ngoon gi am na yeneen i daayira yoo xamante ni wala yeneen mbooloo ñu ngi ci koñ bi di def ju def ju demee noonu est-ce que yéen a ngi xalaat. est-ce que yéen a ngi xalaat fédéré ba bis bi mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk fii def ko muy benn bis yéen a ngi ci def ay jéego wala fan ngeen ci tollal ni ci fédéré mbooleem daayira yi nga xam ne ni yéen a bokk liggéey bi ngeen def ko muy benn fii ci koñ bi waaw loolu euh, defe naa bu fekkente ne fii ci koñ bi nga xamante ni mooy gox bii ñu jege nii mhm. daayira bii di Minanul Baa Xadim mhm. moo fi nekk daayira bu mag boo xamante ni daayira bu durus la mhm. te it euh, bu fekkente ne yeneen sosu na jàpp naa ne e, siiw guñ siiw goo xamante ni dinañ mën a yegg si ñun ngir ñu mën ko xam waaye buñ ko yëgee it dañuy boole lépp ndax mbooloo mooy doole te it maanaam aljamaahu rahma bu soobee yàlla bu fekkente ne yëg nañ ne fi benn mbooloo taxaw na fi ci bii ci gox bii ñu nekkee danañ danañ ànd ak ñoom ngir liggéey boobu waaye li nga xam ne daal mënees na ko ci e, jàpp mooy kuréelu kenn e, sëriñ Tuubaa ak kuréelu Jaalibatu Maraaxib bu mag bi yooyu yëpp woo ñu ba tàyyi ñu dem fa teew ngir maanaam fexe ba boole liggéey bi yëpp muy benn tey lépp loo xamante ni yàlla dogal na ñu koy woote ñoom ñun danañ dañ ci dem ànd ko ñoom waaw muy kuréel yi ne ci dëkk bi yëpp muy kuréel mu faati yoon bisiri bi nga xamante ni sëriñ Malick Gueye mi nga xamante ni war naa wax sax ci jataay bi moom kenn la ci si jëwriñ yi ñuy taxawal altine ju jot ju njëkk ci weer yi ci barabu sëñ Fallou ak kuréel jaalibatu maraaxib bi nga xamante ni ñooy taxawal alxames ju alxames njëkk ci weer yi ci Euh, barabu seex Cheikh Moustapha ñoom kuréel yooyu yëpp maanaam dañuy ànd ak ñoom di liggéey programme bu am dañ cay dem teew ca moo xam muy màggal mu si wala yeneen màggal yi xew ci yoon wi yëpp dañ cay dem di ànd ko ñoom muy nekk liggéey boo xam ne daal yamale wuñ ko rek ci euh, euh, ci gox bii rek waaye daal fépp foo xamante ni yëg nañ fa ak liggéeyal sëriñ bi ma nga fa ci jàng xasida danañ fa dem. xam naa fi ni tëjee mooy mu mel ni ginnaaw tey jii yéen a ngi waajal bisu déwén bi kon yan kàddooy soñña ngay jox mbokki taalibe nga xam ne yéen a bokk liggéey bi ngir ñu waajal déwén incha allahu. waaw comme niñ ko doon waxee at mu jot rek maanaam jaayante la te it luñ jaayanteeg sëñ bi la yaakaar naa ne waruñoo lu mukk lu dul dañu ñoo teg ci kuusu bàmmeel te man sama pas-pas mooy buñ ñëwee ba ci biir bàmmeel sax dañ fa war a nekk di liggéey foofu di fa xidma man pas-pas boobu laa amee léegi nag loola kon mooy maanaam amul amul ñun amul nelaw amul noppalu amul dallu fii nii nga xamante ni ñaan nañ fi rek fii lañ daal di tàmbaliwaatee rek jëmaat déwén bu ñu yeggee déwén incha allahu taala tàmbaliwaat ñaane waate rek safaat ba keroog maanaam suñu borom taala taala di ñu fi jëlee ci ci sayir bu ñu yeggee ba ci barsaq yi foofu di ko fa màggal rek ndax it ah barke borom Tuubaa kon sëñ Malick Guèye euh, Mafatihul Bichri yéen a ngi teewoon ci ngont mi nga xam ne nii waa mi neen bu baaxil xadim ñu ngi ko doon amal di euh, dundal xasida yi di ko delloo addee Serigne Touba mel ni bun gëstoo léegi tuuti ci ginnaaw rek mel na ni yàgg nga ànd ak ñoom te itam euh, am nga liggéey bu am solo boo leen di def ci xes yi liggéey bu am solo bi naka nga ko jàngatee. jërëjëf xanaa di sant yàlla bu baax si jotaay bi di ñaan ci barkeb jotaay bi Cheikh Sidi Moutar yàlla daf yàgg lool te ànd ak wér ak njabootu Serigne Touba bi yëpp. Euh, di santit ci laaj bi ñu laaj dañuy sos suñu kaddu rek ci kaddu sëñ Moustapha fi mu bàyyee maanaam mu mel ni boobaak léegi ñu ngi koy ànd ak ñoom Euh, li waral ànd bi yëpp nag euh, weesuwut fekk leen ci loo xam ne wóor nañu ñun ñuy teew fii ne bu sëñ Tuubaa ñëwoon ci jotaay bi duñu soppi toogin te ku ne xam na ne loolu lu jafe la ci jamono jii ñu nekk maanaam bari na ñoo xam ne dañuy dajale seen alal dajale seen jot dajale seen lépp euh, ne dañuy sant sëñ Tuubaa waaye dañuy fanaane fo ak i caaxaan ba asamaan set te ku ne xam ne lu yaatu la ci jamono ji ndax bari na waa ñoo foo xam ne yëngu ya bari na fa riir ma bari fa lool te daray sëñ Tuubaa néew fa te ku ne xam ne loolu fees na jamono bu bu baax ndax boo déggee kàddu yi sëñ Afe yi yi mu leeral rek loolu da ciy sofuwaat dalay wan ni kon ndax wax na ni murit gi daanaka fa mu waroon a àgg àggu fa ndax loolu euh, ñi ñi ko waral dafa bari mënuñoo tudd ñëpp ndax taalibe yi am nañ ci wàll ñeneen ñi am nañ ci wàll kon loolu yëpp bu fekkee yàlla dogal na ñoom ñiit ñu jóg di ay ndaw Eh, ndax li sëñ Moussa wax man mën naa ci seede ndax eh, ñoom ñi maa leen gën a gudd tànk fuuf ndax fi may dem sama fi ma mën a àgg ñoom àgguñu fa jotaay yu bari dama koy fekkee mbooloo yu bari yàlla dogal na bokk naa ci waaye ni ma gisee mbooloo mi dundale Serigne Touba man néewaane ma toog ci jotaay boo xam ne noonu lañ koy dundalee. kon jërë ngeen jëf mbokk yi loolu mooy eh, li nag mooy bis bi nga xam ne nii wala ngontum xasida mi nga xam ne nii waa Minanul Baaxil Xadim fii ci Daaru Xuddos doon ko amal di ko amal nag at mu jot di ci delloo njukkal Serigne Touba Cheikhul Xadim ci xasida yi mu mel ni niñ ko tàmbale woon ci njàngum alxuraanul karim noonu lañ ko wéyee itam ci njàngum xasida ci diggante durus ak yëkkati tàmbale ko ci sëñ Abdou Lahad Touré ba ci sëñ Ibrahima Guèye waaye ay waxtaan yu am solo am na fi ci diggante sëriñ euh, Afia Niang ak mbokki taalibe yi nga xam ne ni doon lañ leen interview lépp nekk njariñ yàlla nañu suñu boroom defal dégg ak topp nungul ñu liggéey bi defal ko addee Serigne Touba Cheikhoul Khadim ba seriñ bi boole ñu ci baytam gu siiw goo nga xam ne ni mu ngi koy dël képp ko sax di ko liggéeyal wax di xawaay jël les dina daamu fi xidmati wax abdodohum maaram wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu